jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci ñetti téeméer ak juróom benn fukk juróom ñaari test yi ñu def fanweer ak juróom ñaar ñoo ci positif maanaam ñaar fukk juróom ñeent yi ay cas contact lañ juróom ñett yi di ay ka communautaire yi ñu mëna a séddale nii ci juróom-ñetti cas communautaire yi juróom yi gis nañ leen ci Touba benn bi ci Mbacké benn bi ci Tivaouane ak benn bi ci biir Thiès ñeent ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey amul benn cas grave bu ñu signalé ci suñu structure de santé yi yeneen malaat yi nga xam ne ñu ngi leen di hospitalisé ñu ngi am tan ci bésu tey bi dalee ko ci kaa bi Sénégal njëkk am mun nañu woññi ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeenti cas ci loolu ñaar ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar wër nañu si juróom benn ñàkk nañ ci seen bakken kenn ki ñu évacuer ko mu des ci suñu hôpitaux yi téeméer ak fukk ak juróomi malade ci traitement ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi mu dolli di sàmmoonteeg digle yi ñuy joxe maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam